du plaisir à d'ici sur ce plateau que du plaisir à vous accompagner tous les lundis du lundi au jeudi de 10h30 à 12h30 actualité que vous avez passé un excellent week-end que vous passez une très bonne journée à toutes et à tous et bon début de semaine nous koy sommes defee euh, te ñu min ko donc premier ministre Amadou Ba jamono ji may addonge di teewlu mu ngi ak député 14e législature bu assemblée nationale tey def DPJ déclaration de politique politique générale ndax dina ci addu ndax dina antom deet mais bëgg bëgg Abdourahmane Diouf wuté na lool ak bëgg bëgg Amadou Ba bëgg bëgg njité rew Macky Sall mom docteur docteur Abdourahmane Diouf président Awalé pour ñu ko xamut moom bëgg-bëggam ñu def notion de censure manam bloquer li nga xamné mom moy déclaration bu politique générale bu premier ministre de Amadou Ba Ali Kouyaté ko ñi ko xamul moom way def katu ñaatef bobu ci euh, région bu Thiès département bu Mbour ñaari doomi adama la yëkëti fétal dal di ko koy sox ñu ñàkk seen bakkan ñu baree bari am ci ay gaañu gaañu département bu Mbour réew ak Sénégal euh, dund weekend macabre weekend boo xam ni que bu leen neexul la donc li xew ci Mbour ñun ñu ngi koy ñaawlu ak képp koo xam ni que dégg nga xibaar bi di Ali Kouyaté cent cinquante mille la jëndee euh, boobu lekk euh, fetel am ay bal yoo xam ni que bu ñu sukkandikoo ci pro communiqué procureur de la République leneen loo xam ni que tamit jafe-jafe la ci askan wi mooy dem bi ak dikk bi ci kaw tëli bi jamono ji ñu ngi dund kenn mënu ko imaginer prise euh, en 48 heures d'égalité ak Kidira fukki ak ñett ñak nañ seen bakkan ci kaw bi lu doy euh, ci bi donc chauffeur si def journée de centralisation ki dem ñu ko Sénégal son excellence le président Macky Sall jité won Ahmed Youssouf Benzaloun moom moo légui euh, président conseil départemental yu nek ci Sénégal donc maire bu Ndiop mom mo wuutu Alioune Sall euh, ci bobu la kuréel dinañ ci ñëw ak waxtaan bi ak le grand journaliste Limina bi nga xamné mi ngi tok ak ñun ci actu commenté bi la tey ñuy dalal suñu gan bokku na ci tam li gëna a euh, ñi nga xamné ñom ñoom coalition yewi Askan Wi ak Rayel moy réseau des élus locaux ñom dañu boycotter bobu lek ndaje nga xamné don nañ ko magal niki dembu fàttali leen tamit dembu doonoon na bés bu am solo ci njiitaare bi Macky Sall ndaxte bés démb lan ko woyal joyeux anniversaire Assane salaamualeykum. waaleykum baax muy jotaay bu njëkk boo xam ne man ak moom daan ko séq muy partage bu ordinaire boo xam ne ni que tey ay njëriñ képp lay doon ak sunu gan fatte naa leen ko nimal mais daan ci ñëwaat ci kanam al Ousseynou euh, Diop euh, magget noo def. voilà Babacar maa ngi lay nuyu bu baax di leen ziar di nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal plateau bi di nuyu suñ mbokk téléspectateurs yi nga xamante ne ñoom ñoo toog di seetaan heure bu baax bi di 10h30 à 30 maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax. ñu ngi lay bu baax di la jox sa wàccuwaay ci bes bi j'espère que passé nga week-end bu neex. oui. très bien à Kaolack et ailleurs donc ça démarre Max maa ngi lay nuyu. waaw Babacar fay la dama gaw fatte dom yama na nga def. loolu la nga jàmm baax maa ngi fi ah, Babacar ah man kay. nuyu naa la Babacar di nuyu Maguette di nuyu Assane di nuyu suñu invité bi ousseyni Diop. Mm-hmm. ginnaw bi mu len nuyoo maa ngi nuyu mbok téléspectateur Kaolack TV di len nuyu di len jox sen seen wàccuwaay di len wax ngeen dal jam sen bir émission mat Show. il paraît que Ocas amna na lu ñuy yeewoo am na lu ñuy jàmbat foofu. Mm-hmm. Euh, foofee ci Ocas sax euh, ñu ngi yeewu ak euh, métit ak mm-hmm. naxar ndaxte lii di projet Promoville bi xamna sax du ñak suñu rek sunu invité bi dina ci avancer bu baax parce que mom sumu djumul mu ngi bok ci Serigne bop nek maire bi nga xamni moy mooy maire Kaolack mhm. te ku wax prom projet Promoville ville xamni euh, bok na ci maire yi ñoy ñi nga xamni ñom ñokoy ñom ñokoy yor ñom ñoy joxe ñi fay liggey ak lu ni mel wa occas japp ni liggey bi nga xamni wa euh, waa ville ñukoy defar a savoir pavé yenn coin yi fa nek lu bon ci 100 mètres ñu war ko pavé fa fekk Ocas ñu gis ni pavage yi liggéey bi dafa xawa yex fofu torop dañuy xey gis fa ay doomu adama yu bari naka noonu it ñu ngi kaas li di euh, ñako ñàkkub euh, tali mbala sax ñàkkub euh, canalisation jëmale ko ci pavage bi ñu laajee ki nga xam ni moo yor wàllum liggéey bi ci loolu daf leen andil ay leeral mu ne leen mhm. euh, li nga xam ni moo jëm ci wàllum canalisation bi dafay dikk gannaaw bu ñu defee pavage ba pare seen njàqare mu bokk ci pavage yi nga xam ni pareeguñ ñu ne la après la canal bi di ñëw te canalisation moo war a sax jiitu su ma juumul ay pavage mhm. loolu nag bokk na ci lenn li ñuy kaas ñaareel bi mu nekk doomu dëkk bi nga Euh, yowoo foofu ci occas mu gis ni manqué nañ lool seen teewaay ci biir liggéey bi mm-hmm. ndax ñoom ñoo deful déposer seen i dossier pour mën a bokk ci liggéey bi wala sëriñ wala sëriñ mbub ak équipe am ñoo dul euh, intégré ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci koñ yi ngir mën a andi liggéey bi ci biir euh, occas ak lu ni mel mm-hmm. lu ci mënti am daal mooy jàpp nañ ni liggéey bi yeex na foofu foofu ci occas du suñuy kàddu waaye kàddu ñii nii dëkk ci occas la xam naa ci kanam tuuti dinañ an dinañ bàyyi suñu invité mu gën cee avancé parce que joyanti sax dina ci am nees mën a def tamit ba liggéey gi gën a mën a avancer. gën a mën a avancer kenn ku ne daal di ci gis sa bopp. Mm-hmm. donc wax nañ ko léegi fukki nit ak ñett. ñak nañ ci kaw euh, te ñàkk nañ seen bakkan ci kaw télé bi. ci mm. diiral ñaari fan képp. Mm. ci axe xombal nguur ak Kidira. ñu mm-hmm. lu doy waar. ci axe xombal nguur ak euh, Kidira comme ni ko waxé lu toll ci treize personnes dal di nañu ci génn aduna ci 48 heures képp ñu mel ni euh, Cheikh Ahmed Tidiane Sarr amna na bu am solo moom tamit bu mu war def encore jëmale ko ci walum talibi ndax té moom mooy le président des cavaliers de la sécurité routière manam sensibilisation bi dafa wara délu ci si waat. Mm-hmm. qu'est-ce qui est à l'origine de ça. absolument c'est la question véritable dafa dafa jot délu aussi neexu la wax mais nañ ko wax te dee dañuy gis ay euh, permis de conduite yoo xam ni ñaata nit. kan moo fi hmm. amul xarit boo xam ni tey day toog mu ne la sama permis jënd naa ko. Hmm. neexu la wax mais on le dit. absolument ñaata nit ñoo fi am permis de conduite te sax ñu dawal. benn ah. ñaar ñaareel bi mooy euh, jikko yi ci kaw tali bi donte lu yàlla dogal dafay am mais jikko yi ci kaw tali bi dañ ko war a xoolaat. Hmm. lan moo nekk à l'origine loolu yëpp. xam naa hmm. dinañ ko dinañ ci gën a avancé ci kanam dikk bi lan moo war a nekk tamit tax taxawaayu chauffeur si ci loolu hmm. euh, naka noonu yi tamit euh, jamono ji may àddoo ngeen di teewlu euh, président assemblée nationale dalal na tey Amadou Ba hmm. Amadou Ba moom mooy premier ministre tey tamit war na nañu wax gouvernement bi fan la war a seqi tànkam. fan la ko teg. Mhm. ak tamit urgence yi nga xam ne mu ngi ci réew mi. nees mën a def ba saafara daal di ciy am. Euh, loolu nag dafa dafa euh, xaw a mel ni lu lu lu judd rek commencé juddoogul sax waaye lu nekk ci yoonu juddu commencé am ay jiixi jaaxa ak ay tagga témbe ndaxte buñ ne déclaration boo koy def euh, nit ñi war nañoo am benn kóolute ak tamit loo xam ne moom la ñuy xaar ci bi la déclaration waaye déclaration boo xam ne defagoo ko mu am ñu génn taxaw temm daal ni. nation de censure ben ñaar ñu gis coalition bi nga sax nañ ci assemblée nationale majorité wayé euh, ñom ak boycotter euh, est-ce que

je me rappelle ba légui euh, bi moy 16e fois ñuy def déclaration de politique générale mhm. tay Amadou Ba ñew ndax Amadou Ba dina dugg ci taarixu politique waawam déet moy laaj bi samp mais jamono ci mom dorénavant na am na quatre cent minutes yo xamé ni que mhm. war na ci wax ngi convaincre ku jëkk politique gi euh, dinañu wax tamit ci euh, bëgg-bëggu docteur Abdourahmane Diouf président mhm. Awalé mom bëgg-bëggam moy na gaay gantal lepp bloqué lépp def notion de censure bo bo gissé buñu buñu bu reculer tuuti da ngay da ngay xamni euh ah Amadou Ba liko fi tek euh, mën nañ wax euh, fast track la dañu bëgg mm. dañu bëgg liggéey bi gëna a gaaw tamit gouvernement de combat la bo waxé gouvernement de combat cela veut dire que am na ñoo xamni ñom nga wara jamar lool waye jàpp naa ni jàmmaar law bi ñu ëpp ci askan mi jàpp nañ ni euh, opposition bi la jamar lool mais man dama jàpp ni gouvernement de combat bobu mm. combat la bu muy doon ak li nga jotona a liggéey démb parce que on dit souvent que ni doomu adama bi fu mu war xoolee mu ngi jëm kanam am déet nekkul di comparer boppam ak keneen mais di comparer boppam fi mu tolloon démb ak fu mu tollu tey. Mm-hmm. kan la war a kombaawal mooy li nga xam ne def na ko démb li état réaliser démb la ñuy jéem a xool naka luñ koy yokkee combat ak li ñu réaliser démb pour mu mën a gën a jëm kanam. Mm-hmm. et ça pour le fair ah. il faut nag nga am euh, ñoo xam ne ñu ngi lay appuyer bu baax boo amee journaliste playboy booy nga koy bàyyi mu wax xalaatam c'est bien dañu am nag journaliste playboy xale yi yëpp dañu ko xool di ko xolaat <laughs> naanu ma sama garab yi nag su ma defee erreur da ngeen may comprendre mu ngi nekk ma dénkaa defale ah, euh, waaw moom Ali mi moom fu mu dëkk ak fu mu bayoo ak fu mu cosaanoo euh, Ali Kouyaté Ali Ali Ali Ali Ali daal fetalam la yor rek ku mu tasanteel rek pëm rek eh, eh, li gën a yéeme mooy dafa dafa ab ab Guinéen la am na benn député bu ko daan wax de yow ak kii fu mu bokk ak ku ko jur ak ku mu cosaanoo <laughs> mu bokk. ah Alengo ah, ah, moom mi moom mi ñuy gis ci écran bi actuellement. moom mm-hmm. ab guinéen la euh, li ëpp ci askan wi maanaam euh, li ñi gën a fës ci li ñu wax mooy euh, fële la jógee ca Thiès. Mm-hmm. moom moomee Thiès la jógee mais nag Sénégal war nañoo xoolaat. suñu doxalin conducteur de moto Jakarta la woon conducteur de moto Jakarta la woon. Ah. en même temps tamit da doon yëngu ci wàllum vigile waaw da doon ak lu ni mel. Mm-hmm. ndaxte jàpp naa ni su nekkul woon conducteur de moto Jakarta du am possibilité. dawalee Jakarta fële ba fii aussi war nañ xoolaat suñu bopp parce que jël pistolet ko sa sénégalais jugee ba biir Mbour. sans pour autant mu am. koo xam ne dina vérifier xool li muy def li ma gën a li ma gën a déranger ci cas bi mooy naka ngay defee déclaration nga dem ba police nga wax nga def sa déposition nga ni lan euh, da nga amoon jafe-jafe xaalis soxna si nangam soxna si sàngam te bu ñu xoolee li ci biir lépp dara du ci dëkk mm-hmm. benn ñaar ñu gis ni moom yàgg naa am altercation ak état ak ak ak police ak lu ni mel ñu bàyyi ko mu yor pistolet jugee Thiès ba biir Mbuur ci lan war a yor faux hmm. pour wecceeku ko. pour lan après nga war ko wecceeku ñu ne la non faux billet bi mënuñu ko wecceeku parce que faux billet la à notre grande surprise lu ñu xamul ñu mel ni États-Unis nga génnee pistolet tiire nit. Hmm. ñu lay taxee manque de sécurité weesuwul nit. Eh, bu fekkoon yeneen pays la yu développé yi fi ñu toog la ñuy ñu woo police. Mhm. mais ñun au Sénégal on est tellement social bu dara xewee dañuy jéem a. Ah ñu ñu ñu intervenir. loolu moo waral sax ñaari nit ñàkk ci seeni bakkan ñeneen ak ñeneen. kiy jël ci bal ci épaule kiy jël ci bal ci abdominaux. lu waral loolu bëggoon aider ku ni mel léegi naka la ñuy def bi et bi waa Mbour jugee. Hmm. bëgg a dal ci kaw waa ji police dafa ñëw mu denc ko. Hmm. doyul mu yëkkati ko mbuur génnee ko. yóbbu ko Thiès fa lañ ko nar a jugé. Thiès bi nga xam ni fa la jógee fa la fa la fa la jógee jël pistolet dugal ci poosam ba yegg si mbuur ñu war koo delloowaat fa la nële. yenn saa je me pose la question à savoir ñenn sax mën nañ ne du xalaat bu naaj waaye des fois nag <laughs> jàpp naa ne day jot. dafay tàggatamee ñu bàyyi nit ñi def seen seen seen. Mhm. justice donte loolu Aliou Cissé moom sax journaliste bi di Libération mu ñu koy nettali ne euh, ginnaaw fukki fan ak juróom déglu leen bu baax. moom Ali réparer na li nga xam ne moom mooy fetel bu bees boobu. est-ce que jëndee wu ko cent cinquante mille ah, cent cinquante mille mu ngi ko jëndee ci Mbàkke lan foofu rek ah Mbàkke man dina moytu rek waaw baax na <laughs> fukki fan ak juróom moom Ali mu ngi am fanweeri at ak juróom-ñaar maanaam trente moom Ali Cissé ba tey mi ngi bawoo ci réewu Guinée Bissau euh, ci Conakry Guinée Conakry foofu la fekk baax baax fekk ko fa ñamu gaañ bokk na ci ngaañ Cissé. Mhm. ay atam toll ci fanweeri at Aliou Ba am na ñeent fukki at moom tam gaañ na ko gaañ na tamit Mbaye Diouf am 73 ans xam nga ni kii màgget na waaye la ko dese bariwul mën nga kaa baal Moussa Ndaw gaañ na ko am na fanweeri at ak ñeent. ay mhm. Ali foo dëkk ak foo cosaanoo yàlla nañu yàlla àtteeg yow. Uh-huh. def leen ci li ci war Ousseynou Diop ñu ngi lay nuyu. leen nuyu vraiment. di koo ci bëgg nag soo noppee mu <laughs> nga yóbbaale. ak euh, ñu nekk fii vraiment di rafetlu ak. seetaankat yi nekk si ginnaaw di rafetlu ak bi vraiment di leen euh, di leen wax ne maa ngi maa ngi rafetlu jataay bi quoi di rafetlu aussi télé bi. très bien parce que tamit ñun bu dul dara ay Kaolack waa ay Saalum Saalum lañ. Mm-hmm. lépp lu rafet. dëkk Kaolack dañ ko koy yéene te dañuy bëgg Kaolack. très bien ñun ñu toog RFI ak ñu toog CNN ñun Kaolack lañ lañ bëgg. Mm-hmm. Kaolack développé rek merci beaucoup ci kanam tuut dañuy euh, bàyyi ko mu nuyo nuyo na ba noppi dañuy dem service commercial dellu siwaat Maguette yaa fan. keur ndak Kër ñu xol lu fa am ak tamit lu mu fa jele ak lu mu wara netti netti kat bu mag ngi. <laughs> le complexe Kirby. Ou bien na leen beneen espace boubesse. Vous bu à complexe Kirby. la brioche Kurnak. boulangerie pizzeria gelato glacier pâtisserie Saloum Chicken ak a neex Saloum Chicken la la wax de à la brioche Kurnak. Ndaak di ngeen fa fekk ay misu yu loolu lañ baguette mburu yu baax wala boude pain de mie Da pain de mie moom dañ cee pain de chasse naka noonu brioche le viennoiserie salée comme sucré ay croissant beurre. Mmh. Aïe croissant au chocolat. Mmh. Aïe cake. Mmh. Cake nature, Le cake chocolat. Ou hmm. le cake Nutella. Hmm. Madeleine yu baax pour ce anniversaire nak denk leen ñu seen bopp. bay leen ñu defal leen anniversaire bu baax. gâteau anniversaire bo xamni mi ngi à la brioche Kër ndak notre large gamme de gâteaux unique ak Kaolack Ben la fi. venez savourer nos pizzas. Wow wow suñuy pizza Ben la fi tamit de. Saloum chicken ñam ñam ñam dafa croustillant te neex am ay glace yoo xam ni parfum bu la neex sa morom nga ne brioche Kër deuxième rond point Medina Bay. jano ak complexe Kër Baye mën nga ci 77 191 74 74 yow sa anniversaire neex na ba pare boo wootee foofu wala nga am xew rek woo ñu ñu defaral la yu 77 433 69 12. Kër Ndak dafa xew Maguette mi ngi nekk ci euh, Medina Baye ci rond bi. voilà Babacar Kër Ndak mu ngi nekk rond point Medina Baye boo gëstoo rek daal di koy seen képp koo xamante ne bëgg na lu baax rek mun na faa dem Kër Ndak dañuy jaay ay brioche yu baax. Kër Ndaak ñi nga xamante ne ñoo ngi ci décembre bi la natif di décembre 31 décembre mën nañu dem Kër Ndaak defar lu fa seen i gâteau yu mucc ayib Kër Ndaak boo fa demee lépp loo soxla rek ci wàllum pâtisserie da nga ko fay daal di am. Mhm. ñi ko xamul moo nekk mburu dugub. Ah da nga fay daal di am li nga xam ne mooy dakaroise. Oh. da nga fay am norvégienne. c'est beau ça da nga fa am. sa gàtt di fa am ay keeg yoo xamante ne tamit yu mucc ayib la. Hmm. mi ngi foofu numéro bi nag ñu ngi leen koy daal di afisal pour que ñi nga xamante ne dañ koy soxla dañ fay daal di dem daal di jënd xeetu baax baax yooyu foofu ca rond-point Medina Baye. mos nga lekk mburu dugub Maguette. non non mosuma ngaa lekk. Ah, mais naa dinaa doxantu doxantu ji ba complexe daa du ko fay meuna am te Babacar kan, lu fa gëna a lu si gën neex ya, complexe Kër kan nak ñom dañoo disponible. ah oui mhm. fo len wo ñu jël lo bëgg commander ñu nga nga daal ko fay am. Mhm. donc pour les natifs de ce mois de décembre bu bëggee ay gâteau d'anniversaire aussi mën nañu dem euh, brioche bu Kër nak voilà euh, donc numéro boobu mu ngeen di gis muy affiché wu ci écran bi ak barguette yi ak mburu dugub ñu naan ko 5000 euh, donc amna fofu ci boulangerie Kër nak Euh, décor bi nice na waaye tamit euh, li nga xam ne lépp loo leen soxla euh, ci lu jëm ci wàllum pâtisserie am na foofu numéro baa ngi noonu. 77 am na am na am na géyeen yoo xamante ne nag keroog bi ñu jàllee pub bi ba pub bi ba pare dañ maa oo ma. xeetu baax baax yi sekkeen bi xam naa ne yii rek nga bëgg ma ne leen dama leen koy daal di bàyyee ah ndax yéen ñamu suukar seen yëfa ah te kër ndaag moom yi ñuy def macha allah am na yoo xamante ne pour diabétique yi la am na yoo xamante ne pour ñi nga xamante ne duñ diabétique boo fa hmm. demee rek da nga koy daal di am mu nga ko kon nag ñàkk faa dem wóorut mën ngeen daw gaaw euh, dem xooli ji li nga xam ni que moom mooy kër ndaag ak xeetu baax baax yi nga xam ni ko andil nañu ko askanuk Saloum euh, ni seen numéro de téléphone moom ngeen gis noonu muy affiché wu ci Donc écran bi donc ñu dalal sunu gan nuyoo na léegi di Ousseynou Diop opérateur économique la waaye tamit euh, étudiant la nekk euh, ki nga xam ne bokk ci ñi s'imprégné wu ci Kaolack nu muy doxé waye tamit Kaolack yitel ko lool motax ñu dalal ko tay mo jité mouvement des jeunes pour la renaissance et le développement de la ville de Kaolack bokk na li tax ci ñu tànn ko tey ngir teg ko ci plateau bi war a waxtaanee ak moom lan moo ko dugal ci mouvement yi tamit lan moo ko dugal ci politique waaye étudiant gi mu doon rax ci dolli teg ci opérateur économique mu nekk ñetti kasket wala ñeent yoo xam ne yi tamit di xëltukat ci wàllum sport bokk itam kuy dugal loxoom ci euh, CQR CQRP c'est ça. Mm. voilà ci ni euh, football bi di doxee ci Saloum euh, bàyyi nañ la nga nuyoo Ousseynou laaj bu njëkk bi mooy étudiant bi nga doon naka ko boolee casquette yi nga xam ne lim naa ko waaw balaa maa leen vraiment di rafetlu invitation bi. Mhm. fas yéene ñëw tontu seen i question donc man bi ma bac ma ngi ma ngi ma ngi jàngee Ndorong euh, école Senghane Badiane jangé lycée euh CM2 lycée jàngee euh, euh, nouveau qui lycée bu mag bi. nouveau lycée Valdiodio Ndiaye. Valdiodio Ndiaye la jangé après daal di am bac dem Dakar ma am bac 2009. ba bac 2009 donc ci la am sama duel 2.

ay Déggoo Ndor ak ñoom dañ ma ñëw jox ma seen i seen i seen i bagage jébbal ma ko comme genre secrétariat mun naa xam ne sax man président la mm-hmm. parce que lépp loo xamante ni moo fa am man sama loxo lay ñaan. ASC Déggoo mag a bi ngay dégg. en tant que ndaw ñu jox ma loolu. bi ma joxee loolu nag man it may nekk ci zone bi aussi zone 3 nga xamante ne bii au au temps moo ko dirigé woon instant bi Pape mbay moo ko moo ko dirigé. bu mm-hmm. bu Pastef euh, mooy di ko remercier di ko passage. foofu aussi ñu def ma fa euh, président commission sportif ma gérer tâche mhm. en même temps aussi euh, di doxal nak may doxal euh, équipe football civil. Mhm. bu ñu Kaolack FC bu président Abdourahmane adj instant bi mom mom mooy adjoint maire bu chargé football bi mom aussi mu mu mu ñëw ma tamit équipe bu ne ko xam Abdou adj xam ne momit du dox ci affaire tiaxar absolument te Abdou tamit du du n'importe qui. Mm. n'importe qui bay dugalanteeg moom.

bëgg a jaar man mi sax amul moom ñun moom sant yàlla. ay mhm. Kaolack waa lañ. très bien Kaolack ko quoi. Mhm. te liggéey rek moo wóor. acca mu bàyyi la ak soo mais nag ci say début kaddu ñu ngi lay dégg euh, sa teewaay fële ca am sa assurance. Mhm. kon du ñàkk nga war ñoo mën a andil yenn ay kaddu ci très doomu aadama yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci tali bi en tant que. assurance waaw waaw loolu que tamit dama ci daan def ay ay ay daan def vraiment ay sensibilisation. di ci di sensibiliser parce que dañuy def assu dañuy assurer assurance au risque xam nga

da ngay wax ba sonu kenn dula faalé mais sanction yoyu mo wara sanction dafa wara am mu guéné sa poste sanction bu génneewul sa poste wala ñu condamné la tay ji nga nit bu défé dara nga yobbu ko ci yoon do do ko défati mi ngi melni tay comme football bi rek nga xey gaañee ñu jox la carton est-ce di nga football. Sénégal bërki dem bu ñuy fubal euh, Idrissa Gana Gueye lu mu def gaañu hmm. est-ce que la marché bi. pourtant métti na. Hmm. mais mais sanction yooyu jàpp naa ni moo waral ñu andi permis à point donc sanction yi ñu ngi am. mais permis à point yi mun naa xam ne appliqué appliqué guñ et puis sanction dafa war a am par exemple ñu jàpp nit ki fay loolu ay amaan mu génne sa poos mhm. su génne sa poos nga ko voilà ëllëg boo waree daw yenn heures yi di nga di nga di nga ne xaaral ma wàññi lii boo waree couper nit ki di ne non xaaral ma respecté lii boo waree jël li li li li li liñ continuer di ne xaaral ma jaar fi mu war a jaar mhm. mais tant que sanction amul nit ki loolu la neex ngay mais mais nañ ñëw euh, Ousseynou ci cause yi ba noppi mhm. cause yi pour yow lan moo koy causé cause li koy waral mooy li may wax par exemple tey nit ki dañuy ñëw ut permis boo xamante ne bi yow leer na la yow waroo mën a am permis dans les dans les hmm. jaaroo ci yoon nga jël permis ba beneen bi teg nga ñëw ak voiture boo xam ne leer na la yow amul benn lu ci normal. absolument nga ne damay daw dépense wala damay am lu ma lijjanti xaaral ma teg ko ci kaw tali bi. ak fu te des woto romb la nga ne kii fu mu jëlee visite technique. voilà wala nga ñëw ivret bi ci kaw tali bi nag. Ah nit ki am oto wala mu war a jaar ci assurance ñu ne la tey fii nga war jaar assurance wala assurance lii wala ji nga assurance bi rek. nu ma ko amee pour wan ko police. Mhm. yow doo am benn risque boo ci dugal. yow naa fay nii lom som som moo fay rek baax na parfois assurance sax dana jeex ñu continuer ak ñoom. Mhm. kon cela veut tey jii sanction bu amul. affaire bi yéen yéen assurance bu jëyee amee. Mhm. lan mooy seen taxawaay. assurance bu jëyee yi amee assurance dafa am tey jii assurance bi nga xam ne boo ñëwee dañ naan la modalité yi lii ngay jël. da ngay jël risques yi wala nga jël lii da ngay jël tey jii lii comme par exemple bu fekkee assurance bi wax nañ la ne la la jox la calcul bi ne la somme la. tey su fekkee jël nga tout sorte d' assurance boo xamante ne day ànd ak moom tey bu fekkee am na risque dañuy ñëw constater tey ki nga xam ne mooy agent assurance moom mooy ñëw constater bu constater jël ko ci lay ñëw dédommager la tey li nga xamante ne moom mooy say say kii ci kaw nag ñu ci kaw nag ñu tooñ la. Mm-hmm. parce que tamit nit ki waroo ñëw tooñ ba pare am na dem assurance bi. Mm-hmm. waaw mais am na si ñoo xam ne tey da ñëw ne leen assurance par exemple man assurance oto nga ne ko tey assurance oto bi vingt mille la. su fekkee ne jël nga tout risque yoo xam ne mi ngi ci biir nga ne noonu enlever ma risque yooyu yëpp defal ma ko cinq hmm. mais mais Ousseynou Babacar du ma bàyyi ma wax lu hmm. amul euh, ñenn ci askan wi ñuy jotoo am ay jafe-jafe te ñu nekkoon ci assurance yi jàpp nañ ni assurance nit ñi liggéey dafa xaw a yeex imaginel tey assurance bi da lay ñëw rembourser li nga xam ni defoon nga ko ba pare ndax jotul ñuy jéem xool naka la assurance. saa assurance léegi dafa bari Sénégal kenn ku si nekk da ngay ñëw ay assurance ay sous assurance dafa ñëw hmm. man assurance dama koo jàng ñu formé ma ci délivré ma sama diplôme. ay Camerounais doon ma jàngal ay Tchadien ay ñàkk ñu délivré ma sama diplôme ma nekk assurance boo xam ne nag am saala la kooku ku ne xam na assurance. waaw waay bu mag. boobu ah du sous assurance du assurance. moom wóor la moom. léegi nag jamono day dox ba nga. xamante ne pare nag di nga fay publicité jarul nga may neexal. bàyyi ko <laughs> jamono dafay dox am am saa moom dafa jaay boppam ba pare. Mhm. man mi dox yow man bureau sax rarement laay dem dama am samay compte tegee ko ne ak samay nit. ok mais mais dagguma la mais naka ngeen di def ak ki nga xam ni moom assuré ngeen ko ba noppi mu am jafe-jafe te amul lu mu fajoo ci diggante bi. ki nga xam ne dafa dañ ko assuré mu ay jafe dañuy ñëw def constaté su fekkee ne tey moom tooñul dañ koy jël le plus rapidement possible yóbbu ko. dédommagé ko ci am sa assurance laa lay wax nag waxuma ci mm. xam ne tey nit ki dafa ñëw rek ibbi benn compagnie am ñoo ma jox ma jël ay papier am tamponné ñëw jox la nga. absolument foofu laay waxee. Mhm. domaine assurance boobu yaakaar naa buñ fi toogee. dinañ fi fanaan parce que mhm. sénégalais moo bëggul yomb tey ndox mi ngay jaay sax ku gis na ndox maa ngi dox suba mu dem ubbi compagnie def ay ndox. waaw loolu moom mhm. mooy sénégalais risques yi nag moom dafa bari gis nga Sénégal tant que sanctionné wuñ tant que sanctionné wuñ jéyee day gën di bari rek. sanction faw mu am man damaa nekk membre CRP ODCAV bu Kaolack tey képp ku fraudé képp ku fraudé dañ lay teg ci yoon sanction la dóor la deux ans wala ñu dóor la un yi. dootoo football wala doo def dara ku def noonu it ñu kii la loolu mooy sanction. Hmm. sanction bu jàllee est-ce que déwén di ko defaat. Hmm. dootoo ko defaat da nga man mi am na lu ñu ma defoon daaw tey boo ñëwee ñu disqualifié la tey sama yëgëb sax ma la dañ ko disqualifié. njiital réew mi li mu wax ni nanu bàyyi euh, dootuñu nangooti ñenn ñi duñu formé woo ci auto école yi maanaam nañuy bàyyi auto école yi. Hmm. ñuy délivrer ay permis waaw euh, opérateurs yi maanaam transporteurs yi am licence ak agrément. dàq nanu loolu. ñaari contradiction yoy non ban nga japp ne buñ ko ci défé man de bi ma man de bima japp moy auto école yi ñu formé nit ñi man mi doxé yow man mënon na auto auparavant dama doon yor auto di dawal mais bama démé bay out permis mhm. dama dem auto école. jàngi code de la route waaw duma ma leen wax tam mi ngi fi kadna ci deux mhm. bo passé tout rek duma leen wax mais fofu la dem jang code de la route dem def code de la route jàll. Mhm. légui mu dese ma conduite conduite dama ñëw dawal na lu lèr ñu dakk dem jënd ñëwaat ñu dàqaat ma ma jëndiwaat te su ma neexoon man di jëndi sama permis parce que xam naa ni ñu koy defee. Hmm. mais defuma loolu barke alxuraan. permis bi mun naa na def na fa presque ay neuf mois jëm kaw te damay lu leer damay da ki may ki may dàqa sax un jour romb na ma ko may dem mais damay ñëw teg ko ci yoon ban nañ may damay admé ñu yëkkati sama permis dama am. man booy digle càngaay day fekk nga jëkk set. Hmm. man loolu laay digal ñu bare bare. Ah parce que hmm. auto école boo ci nekkee dèjà da nga xam code yi di nga xam norme yi mm-hmm. lépp looy dawal def ko yow la neex mm-hmm. waaye xam nga ko waaw mais nag Sénégal il faut que sanction am sanction su amul rek dégg dana a bëri de yow mi ne ku soxor nga bu ñu waxee rek que bu amul bu amul amul bu amul wax ji du jëriñ dara mm-hmm. tey par li ngay wax nii rek ñaata nit fi déggoon ñu rey na leen ci ay tali tey amande treize bu sanction amul dana amaat yeneen sénégalais moo xamul loolu très bien xamul wax wax wax nii nii nii rek il faut nga rëkk ndigam door nangu am sa assurance bi nga nekk lu ko wuutale ak yeneen assurance yi. ah AMSA assurance moom li ko wuutale bari na parce que instant auparavant AXA ak AMSA ñoom ñoo fi compagnie yi gën a rëy. Mhm. te dañuy jox ay sous assurance ay co assurance di ko jox ay nit da ngay jox ay millions ñu jox la. Mhm. et puis seen budget aussi dafa rëy te dañuy former tamit ay cadres. waaw ah, loolu mooy seen différence par rapport ak yenn assurance yi da ngay gis assurance yoo xam ne du ñu am sax yenn branche yi nga xam ne pour mën a pour mën a dem ak bi.

nga xamante bi jaar nga fi nga war a jaar. Mhm. dañ la dédommagé ci yoon. mais bu fekkee nit ki jaaroo fi nga war a jaar wax dëgg yàlla nag ah loolu moom pour ñu dédommagé la du yomb. très bien ok euh, euh, Ousseynou Diop ñu dem nag euh, ci wax ci wàllum politique yaa jiite mouvement des jeunes pour la renaissance ak développement. de la ville de Mbossé am nga sas wu rëy. laata ñuy agsi ci mouvement bi wala ñu njëkkee mouvement bi. mouvement bi kañ nga ko taxawal.

wala ma am damay oo ay kilifa. Mhm. ñu jàppale ma ñu faj ko sama jumaa koñ su amee problème damay oote ñu wutal ma ay moquette lépp loo xamante ne bii secteur de développement la. Mhm. ku ci am problème dañ may oo ma oo samay nit ñu def ko samay nit nag ay kilifa lañ nekk ci dëkk bi li ma wund nag pour ma créer mouvement dama dem AG fédération bii passé ma toog ak ay kilifa tey su ma la limaloon kilifa yi ñu ci bare bari da nga naan ñii ay milliardaires lañ. Mhm. ñu ne ma kat kon xalé nga yaa def politique may leen defuma politique parce que politique bima gis gaay di ko def man duma ko def politique politisian bi gaay di def politique bu salté bi di saga di ut khalis tay di xasté fo tourner bo xé tax tur politicien ñu. ñu ne mm-hmm. demal man man bu nga politique bobu très bien man je préfère être sur le développement. Mm-hmm. ak ak jeunesse bi nga xamanteni mom la encadrer ñu ne ma kat il faut que nga créer ce mouvement def lolu parce que lolu tamit mo lay gëna dimbalé pour nga mëna avancer. ay kilifa wax ma ma xalaat si. Mhm. ñi ma ci kii su ma leen limaloon kilifa yi ngeen ne waa ñooñu dem wax dëgg yàlla ma xalaat si bi ma ñëwee aussi am leader boo xam ne aussi dafa investir dafa bëgg jël mairie Kaolack ñu koy wax muy Serigne Mboup. boobu ban année la mouvement bi. mouvement bi août bi passé la avant élection yi di ñëw. deux mille vingt deux. deux mille vingt deux Serigne Mboup moom bi mu bëggee jël mairie Kaolack deux mille. deux mille deux mille vingt. deux mille vingt mhm. woo na mhm. deux mille vingt la ma comme maag moom ñoo bokk koñ aussi te dégg na ne jeune la mu oom aussi wax ma ay ambition ambition yu rafet nag mais jamono jooju man duggaguma ci politique mhm. xalaatuma tamit dugg ci politique ma bàyyi ko xel beneen bi ci tegu moom it dañoo am luñ bokk bokk nañ koñ mhm. ASC Déggoo bi ma nekk daf leen daan dimbale te mooy équipe am très bien waaw mooy équipe parce que man ba ma gënee nekk ndaw daf ñu doon may ay yenn somme yu sax ay trois millions quatre millions mhm. ASC ku ne xam ne ASC bu mag la. ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy defaree seen seen seen seen nawetaan yi. Mhm. léegi nag moom bi ma demee ne gis ne bëgg na ak yooyu kilifa yi wax ma ma xam ne tamit tey jii man war naa ko mën a jàppale am na nag ay kilifa yu ñëwoon seet si ma. Mhm. Ah. proposé xaalis yu bare bari. comme fu ñu bokk ñooñu ak fu ñu bawoo. non bari nañ mais doo lim ay tur quoi parce que ñoom ñëpp dañoo bëggoon hmm. ñu ci nga gannaaw bi nga taxawalee sa sa kii. sa sa mouvement ñooñu ñu ngi la doon ñu ngi ñu ngi doon dikk ci sa ci di la aider ci bi nga nekkee ci wàllum social ndaxte ku ne xam na ni Sénégal social boo ko bëggee def te doole ji yeggul fenn fii il faut mu am ñu nekk ci sa ginnaaw loolu loolu moom mën naa ci lim am na ñoo xam ne ma doon aider bu ci bu ci njëkk mu njaay raxma moom daan na ma dimbalee parce que tamit man même sama équipe Kaolack FC. Mhm. sollicité naa ko war a dem Tamba mu oo ko téléphone par le biais de euh, Mapaate Ba. Mhm. mu oo ko moom it mu yónnee ñu cinq cent mille. cinq cent mille ñu dem ci. lolu acte bu neex la bu rafet la wax deug yalla su mom day def social bu bari. man bima bima bi ci sa ci sa biographie nga dal di wax ne yow da ngay def social hmm. en tant que élève bi nga xamantene guéné nga fi nga xamantene moy Saint-Val Valdiodio Ndiaye fofu nga amé BFM dal di dem ci lycée ba amé fa sa baccalauréat dal di dem université hmm. ta Val Valdiodio Ndiaye comme que yaa ngi ci social gis nga ni mu mel te dégg nga ciow li nu mu mel yow waro xaar kenn ko xamantene rek dalay o yow da nga wara a jóg nga def ben Val Valdiodio Ndiaye fofu def nañ fa social hmm. social moy amna ay classe yo xamné ne table ba yóbbu nañ ko li ma la wax ne lu yàgg la mais jamono jii kooku du prérogative bu tey man ki ma nekkal mooy monsieur le maire tey conseil départemental ñoo gérer loolu. absolument lycée am mm-hmm. na Youssouf Ben Zeloum kooku moom moo gérer loolu. Mm-hmm. léegi maa ngi ñëw ci li tax li tax tey jii euh, ma ma jàpp ma jàppale sëriñ boobu parce que tamit sëriñ dañoo bokk ay idéologie waxuma ñeneen ñee sax bokkuñ idéologie de mais moom dañoo bokk comme par exemple koo bokkal koñ. xam na tamit tey am na ay ay ay initiative yu rafet ci Kaolack. yéen a bokk gis-gis daal. ñu bokk mm-hmm. gis-gis. Mm-hmm. mais ñee aussi wax dëgg yàlla nit ñu ma neex lañ parce que tamit nit ki ngay def dara ñëw ñu nga sollicité leen ñu jàppale la te sans pour autant que sax ñoom ñu glorifier loolu parce que Modou Moussa bi ma joxee 500000 it boo ko wooyee sax moom fàtte na loolu. woo naa ko téléphone ñu waxtaan Moussa Fall aussi moom xam ne sama tontu la. approdel moo ko sama yaay ñoo bokk ñoo bokk bàyyi moom it aussi daf ma daan sollicité parce que damay am match aussi mu jàppale ma ci match bi moom aussi sollicité na ma ñëw woo. Hmm, membre ñoo ci nekk. mouvement bi moom bari na membre instant bi mi yokk parce que début bi ñu ngi woon si cent trente cinq. léegi moom instant mu mi ngi yokk mhm. xanaa après dañuy gën a laajaat gars yi carte yi xoolaat Serigne yaa ngi ci mouvement euh, ñu na coalition ànd nawle ànd liggéey bi nga xam ne Serigne moo ko jiitee nga ne bokk ngeen objectif bokk ngeen doxalin bokk ngeen gis-gis pour Kaolack mhm. jël na mairie bi huit mois mi ngi nii mi ngi doxal ndax euh, la nga yëgee woon sa bopp ba nage ni yaa nga ca waaw man nag su may ànd ak nit ki damay ànd ak yow ci ngor ak dignité parce que sëriñ toppeewu ma ko affaire politique dama ko toppee ak ngor boo xamante ne ñun ñun dañ koo bokk coloré mm-hmm. bokk koñ comme li ma leen wax mu yàgg ñoo defal ñuy gis mu yàgg ñoo jàppale ñuy gis kon nag bu demee ba soxla man aussi damay bàyyi lépp lu ma jàppoon dem jàppale ko wax naa la fii ne la su ma neexoon am ñeneen ñu ma jàppale mais damaa bàyyi loolu lépp parce que ndaw laa yoruma dara nag mais su ma neexoon tey jëli loolu dem jàppale ñee mm-hmm. mais xooluma loolu te nit ki tamit man su ma lay jàppale du ma la jox bopp di rocc làmmiñ mm-hmm. nekkuma ñooñu nga xam ne dañ jàppale tey suba ñu leen la xalaat man Serigne damay deugante ak mom directement amul ben intermédiaire intermédiaire ok ah, parce que bima ma amul intermédiaire man awma intermédiaire ak ken donc dañuy tok ma tok yalla rek lay tim ñun maa moom ak yalla xam nga lu may wax mun ousenu hmm. yeen ndaw ñi la gëna a gëm bo nekké ndaw nekkal ci li nga nekk te liggéey te baña a wax wax ju bari hmm. mu ne ma kat li dess sama mandat bi mandat bi dama régul de jeexul commencé hmm. mu ne ma bëgguma ci politique ci bëgg liggéey ba ñëpp xamné liggéey na ci fep fuy nit di waxé ak di fa yaqé mhm. bu len fa top kon xam nga ki la wax lolu kon xam na fa jëm mhm. ñu nak ñu nekk ay ndaw yo xamante bi Kaolack moom la may wax ñun pur sang lañ mhm. xam ne ñëpp nak légui lolu mu la wax ak li ngay gis mengo na wala mengo méngoowul voilà limay wax lim mo wax ak limay gis mengo na parce que man sa bu mako soxla soxlaa Seynou Kaolack waaye ñu ngi lay euh, seetaan de Kaolack way ñoo may seetaan man dama jàng alxuraan ba ne aywa lu mu la wax ci wala kanam muram waxal dëgg donte dañ lay rey. Mhm. man sëriñ boobu si ma lem du ma ko waxal loo xamante ne mi ngi ci moom. bokkalu la barke alxuraan ma dara. Mhm. sama soxla du ko xam barke alxuraan ma damaa tedd dem te damaa xam li mu damaa xam fi mu bëgg a jëm man. Mhm. yéen bu ngeen ma xoolee sax di ngeen xam man fa ma bëgg a jëm. te incha allah danaa fa àgg. mais mais Kaolack waay aussi bàyyiwuñ mu seet de parce que damay Kaolack waay yi ak yu ni mel. dafa am ñoo xam ne. bu ñuy topp nit. ci Kaolack dama leen koy wax bu ngeen xam ko. dafa am lu ñu fay yaakaar dafa am lu ñu fay xaar te ki ma àndal moom dafa doxewul noonu. ok yorul loxo sax du dafa doxewul noonu maanaam tey jox ma lii defal ma lii wala duma mën a defal lii ku ne xam ne esprit Kaolack waa mhm. mi ngi tàmbale woon suñu papa suñu maam Ablaye Diack xaw ma xam ngeen comme déet man sax mhm. xaw ma ko damay dégg. ah oui ñu ngi jàng ci ay taarixam. voilà ay taarixam joxe joxe. Mhm. paa yi nekk fa ñoom it di ñëw keneen ku fi ñëw joxe joxe jaar ci ay Mariama Sarr ñoom ñëpp ñu di la jox di la jox. kenn ku si nekk nag dangay joxe ba doo tala liggéey mais kii dana la bu fekkee bëgg nga dara indil ma projet ma financé la bu fekkee jàngoo ñëwal ma formé la utal la liggéey. loolu moom ci ngott la rek ak nay. non non loolu du ay ngott moom moom sax da koy hmm? yaakaar. non non non non buñ buñ ne ah, dafa nay loolu daf ne ja wala daf na mais ma jën jàngal ma ne ñuy nappee moo ko gën. tey ñun buñ jot teeloon jot ci sëriñ boobu. Kaolack romb na fii. waaye parce que tey nit ki nga xamante ne bi tey mooy ñëw tegal la ay projet ne la lii la ñuy def. yow ànd ci projet yi ngeen avancé mais ki nga xam ne tey da daan ñëw taxaw ne la nga fëgg buntam mu ne la loo soxla nga jox ko mais kooku nu ñuy avancé te kooku doo ko wax dëgg nag. parce que ku lay jox xaalis doo ko ñemee wax dëgg. kii nag soo ko waxee daf lay dégg daf lay déglu nit ku déglu la il a le sens de l'écoute. te xeebul kenn. boo ko dégloo bu bu la dégloo dana xam tey jii li nga wax. yow mi kay Serigne Dalla goppal. yow mais mais moom xaafal bari na moom moom li muy wax nii sax. li muy wax nii sax euh, mën na nekk ci ñenn ñi mais ci départ yi am na ñeneen ñoo xam ni seen motif du loolu parce que. départ boo fi gis dama la koy wax. tey départ non mais ñenn ñi ñenn ñi boo gis. Mhm. peut-être dafay am lu mu soxla. yaakaar ko fa joxuñu ko fa. ñenn ñi manque de considération la ñuy wax. non maanaam dafa ñëw xëcc ay nitam kàlla. dafa kàlla béykat yi ñaar keneen keneen tey yow mii sax tey yow mii sax. tey yow mii sax man mii di wax yow man mii nga xam ne man simple nit laa Sénégal lam daa simple hmm. tey man dina am nit ñoo xam ne dañ ma soxla sax hmm. pour ñu gis ma problème la parce que nit ki nekkul na chaque jour ku la bëgg a gis gis la rawatina sëriñ bu personnalité boo xamante ne bii hmm. opérateur économique bu mag gérer entreprise yu mag. Mm-hmm. mais koko tay est-ce que chaque jour mën nga ko di allo allo allo allo ci lo nek nakam mais mais il était disponible ci temps wu campagne. dama gars dañ ko doon gis bu baax dama lay jox ben dama lay jox ben firnde dem ah Ousseynou nak yaa ngi bëgg moom nag bàyyil gars yi laaj la. Ah, dama lay jox ah, benn firnde démb léegi dama dama bëgg. ben lay dem pour wane li nga xam ne gars yi disponible. acca allez-y démb dañ doon def euh, final. coupe du maire. Hmm, mooy final bu saful xorom boobu saful géej. final boobu moo tax 1 0 la jeexee nag bàyyil tooñ. bàyyil bàyyil tooñ. loolu <laughs> ci ah, final yi ah bu géeyee nii am Kaolack. final bu dàq ci man final yëpp fi la ma fekk. bii moo dàq Kaolack mën naa la wax ah. image yëpp. ñu bari dañ doon wax naan. Hmm. ñu bari dañ ko doon xaar naan kii respecté wul bëggul Kaolack. Hmm. parce que lu toll ni final coupe du maire jeunesse bi faloon la ba nga bëggee da daan wër jeunes yi. tey mi ngi nii ñëwul ñu ne dafa délégué euh, Mbaye Ngom mais Mbaye Ngom maire la te mi ngi liggéey te Serigne da koo wóolu Abdourahmane Aj moom moo géré sport bi kooku rek bu teewoon doy na sëkk mooy sama mentor ak ay maire day lobe ñooñu nga xamante ne ay liggéeykat lañ liggéeykat yi bari nañ. ay adjoint lañ Serigne Boubou. waaw ñooñu ay adjoint lañ buñ buñ buñ teewoon rek doy na. Mm-hmm. mais ñu bari dañ ko doon naan moo bëggul Kaolack gëmul Kaolack man am na nit ku ma toogal koo xamante ne bi sax mu ngi naan ah kii xàddi na du ñëw pour war na humilité bi nekk ñoom ak humble bi. Mm. dafa bàyyi bañ mu ñëw te kooku lenn la dafa bàyyi ay yitte mag a mag. kan ci sëriñ. ñëw naa mu ñëw. Hmm. ñëw teew. ñëw teew ko Kaolack gépp la tëj seen génn. projet a ko oh. mi ngi yi ñu toll ci ñëpp bi mu faloo ba léegi. président bi mu faloo man président laa koy wax man sama président du ma ko wax monsieur le maire. Mhm. président bi mu faloo lim njëkk a wax mooy nañ def Kaolack ville propre. ñaata tonne de déchets lañ fi génne ci marché loolu rek dèjà rayal na. Mhm. sans sans sans sena sans sena. sans sena ah. beneen bi ci teg mu mag ñi naan sans sena. waaw waaw xaw na xaw naa soppeeku. loo loo loo nangul nit nangul nit nangul ko li nga xam ne jot na ko. bu ñu la doon noter ci mbalit mi may nañ la sur vingt may nañ la dix. waaw léegi côté boobu moom vous l'avez réussi. Kaolack mhm. boo paree Kaolack dañ doon wax naan mhm. mooy dëkk bi gën a salté ci Sénégal. sans sena xam nga loolu lañ doon wax. moom mu taxaw démentir loolu da ngeen bàyyi loolu nag Kaolack moom sans sena xar kanam. moom sax dafa taxaw moom démentir loolu ne leen man Almadies laa dëkk mu ëpp yoo dèjà bàyyi leen loolu loolu affaire de complexe la. absolument kon léegi Kaolack combat warul complexé. Mhm, c'est vrai la am mu ñëw xar tubéyam wàcc sur le terrain ñu dindi mbalit mi ba mu set. Mhm. mu ànd si nag ak UCG UCG waxoon na ko indil ñu ay xale ñu recruter ji nga recrutement yi ngay wax nii dañuy def appel d'offre lancé ko tey dama la wax yi ñu ci baree bari utiliser tuñ plateforme. Mhm. jeunes yi liñ liñ préféré xam mooy lan jël ay ay ay WhatsApp di WhatsApp di statique yaa ma gën a xam kenn liiratul kenn bindatul dara. damay bind damay liir. Mm-hmm. léegi nag ki xam ne liiratul bindatoo bu ñu lancé appel d'offre léegi gisoo ko say morom yi nga xam ne intelligent nañ xam nañ lu ñu bëgg jël nañ seen connexion dem utiliser ko dem bind appel d'offre ñu jëlee ñu liggéey. Mm-hmm. mais loolu loolu mooy problème bi mais ñu bëri dañ naan kenn yëgul kenn nangul. na très bien yeggaguñu heure du bilan. mais monsieur monsieur monsieur Diop lan mooy lien bi social ak politique bi pour yow. Mm-hmm. pour man social ak lien bi ak ak politique. social ak politique ñoo ànd. mais tamit social pour nga def ko. il faut que nga politique. Mm. parce que politique c'est l'art de convaincre l'art de parler l'art de défendre votre cité. Mm-hmm. l'art de voilà de votre cité. comme le mm-hmm. disait Machiavel. nous savons cela mais pour social il faut que politique. absolument So politique, am yenn yenn yenn yenn fenn fi ñi nga leen on a disconvient même pas parce que wax ko nee na ci coupe mère bi euh, final bi ci deuxième mi-temps bi d'après li nga wax mais si on jëf boobu gis on bu mu fi jotone lu xawa contradictoire en tant que jeune di yëngu ci walum sport ñu giss ni à son arrivée fekk na fi projet bi nga xam ni moom taxawal stade municipal bi. Mhm. bu ñu ñëwee ci stade municipal bi dañ ko taxawal mu gëmloo ñu ay mini foot ak yu ni mel. Euh, mu teew fële wan ñu ne dañoo bëgg mu mel ni lu arrêté fële ñaari affaire yi mel lu contradictoire mhm. ban gis-gis nga am ci jëmale ci loolu. waaw foofu sama domaine la dama faa mhm. parce que tamit stade municipal boobu nga wax. fañ ko defaree dèjà baaxul pour nga dugg fa boo yoroon oto sax mënu fa dugg sax pour nga ko fa problème mais am na latérite léegi. waaw dafa ndànk rek. Mm-hmm. foofu fañ ko def boo bëggee mën nga ñëw ñu na ma wala fañ ko def pour nit accès fa problème de dèjà. Mm-hmm. tabax bañ ko tabax dèjà baaxul. Mm-hmm. xaw ma kan moo yor plan ba. ñun dañuy wax ku dee yàgg sa bàmmeel. experts yi dem xool Abdou Aj dem na wàcc ñun ñëpp dem nañ xool. moom monsieur le maire wàcc na foofu xool ñu xam ne lii wax dëgg yàlla gâché la te bi bañ ko dalee dégg yàgg na te pareegul léegi nag. te comme xaalis bi mi ngi doon dox il a préféré mu ne mu laaj si nit ñi de. ñu jël ko bu ñu ko jëlee ñu jéem a def ay terrain municipal terrain yi nga xamante ne terrain gazonné la. ay mini foot ay mini foot terrain yi nga xam ne terrain gazonné te terrain yooyu boo seetloo terrain yooyu en général même dëkk yi développé yi sax terrain yooyu dafay am te fédération mën na koo homologuer nit ñi di football fubal. bi ci njëkk ñu xool espace terrain déggoo man mi di wax yow terrain déggoo laa nekk te daf ma daf ma ci woo pour wane la dafa respecté nit. woo ma ci expliquer ma am lu ma ci envoyé wax ma ko ma ne ko lii de lu rafet la tey boo defaree lii def ko def ko terrain bustaan def ko beneen terrain. mbaa sóoraale ngeen euh, ñi dëkk foofu ci aux alentours. waa dañ koy sóoraale parce que nekku na loo xam ne da koy def de telle sorte ko muy encom déedéet. ok koy def de telle sorte que tey jii dina nit ñi dañ fa mën a football tey loolu bu pare mm-hmm. stade mën naa wax ne sax mën nañ fa bañ a recevoir championnat mun nga fubal parce que tey man damay génn dëkk bu ne dama fay dem tey rek wala see day day ak Dakar. Mhm. dëkk bu ne dem naa dem maa ngi jógee Sowal. damay dem mhm. Koumpentoum ak fu ne. ñu profité sax di leen mhm. tey terrain kaw la moo moom mooy a tey bu amoon. stade bee dootoo ko sax parce que stade bee man man jàppee ma ko sax stade. gisoo gisoon ni daal lu lu lu lu lu ñu war a jëmmal la def fa xaalis. Mm-hmm. waa Esat mun nañ Esat Lamine Gueye ñu ngi koy defar te mm-hmm. Esat Lamine Gueye bi ñu ngi koy defar travaux yi commencé. lamp yi dafa lëndëm. commencé na sax ndem sax def liggéey. Mm-hmm. bi euh, ëllëg ñu dem noo ko gisee. ëllëgu footballu Kaolack gis naa ne war na mën a développé parce que tamit am na ay jeunes talents yuy yuy fël. Hmm. ay xale yu ndaw ñu ngi fël te école football yi bari hmm. tey boo seetloo ñu ci bare bari ñu ngi liggéey pour que euh, relève bi jóg. Hmm. te Kaolack ku ne xam ne amoon na ay ndaanaan mais tey amuñu woon tey accom accompagnement bi ci war. te man mii di wax yow ndaw laa te ndaw yi rek ñoo ñoom ñoo seq tey ji wàllu football bi. absolument tey di remercier di di di nuyuwaale au passage euh, Père Koso mi nga xamante ne mooy yor ligue de football de Kaolack. Mm-hmm. moom aussi dafa am wax ju mu waxoon mu ne tey ndaw yi nañ ñëw jege si parce que tamit mun a nekk ndaw toog fa nga toog rek. di sànni xeer rek waaw yi defuñ gars yi defuñ. Mm-hmm. mais boo ñëwee man ba ma ñëwee premier âge fédération loolu loo tax wax ma ko.

tey ki nga xam ne mooy président Koso. Mm-hmm. président Abdou Aj nag lay tàmbalee. Mm-hmm. moom mi nga xam ne moom mi formé booy yi. waaw non ma xalamal kenn. Ah. man ma xalamal kenn man dëgg xam ma. Mm-hmm. man sama sama sama sens de parler laa yor. man lu ma gis dama koy wax. pare naa ci mi nga xam ne moo ñu prôné en tant que ndaw. Abdou Aj waaw. pousse ñu ñu dem ñu ñëw koso def Abda dana ko def ne ma bind ma bind ay Ousseynou dugg koso euh, na ko jarul ngay bind nañ ñëw il faut que booy ñëw jël ay décision mm-hmm. muy koo xam ne aussi man fu ma ko wooyee mu jël téléphone am lu ma ko wax day déglu dama koy damay yaakaar sax parfois dama koy déranger ak n'importe quelle heure moom moo taxaw daan ne gis ngeen affaire mi ngi nii il faut que ndaw yi ñëw dugg si mm-hmm. mais munoo toog fële naan maa ngi liggéeyal football bi ñu leen jay ay tur naan am na diw am na diw ku nekk ci football bi mm-hmm. te fekk te yow jege si woo mais boo jege see di nga xam affaire bi ni muy demee léegi nag bi ñu defee AG moom président Koso mom mom mo jël ndaw yi man am maga fa am benen beneen ku nek keur Samba ku nan Salman ak ñeneen. Hmm. daf ñoo jox ay ay ay ay poste bind nek Ousseynou président commission sportive Salman Ba euh, secrétaire de la ligue de football ci ñun ay xalé ñeneen ñi mu jox len poste kon xam nga koku tay mi promouvoir ndaw yi tey tamit mi promouvoir ndaw yi mais tay ndaw bi nga xamante bi tay am nga talent ya nga yëngu ci football. mais bul toog fenn fi nga toog rek di sànni ay xeer. Mhm. tey am na ay grand yoo xam ne yéen a ngi leen dégg ci football bi ñu yaakaar ne ñu yor football Kaolack bi fekk te yoruñu mhm. mel ni kan. bari na bari na ñoo xam ne ngi leen dégg ngi formé ay nit mais jegewuñ te dañuy xalab rek di sànni xeer parce que nit ki tamit li nga nekk yow tey da ciy jéem a. football bi kat Kaolack waaye dañ ci dañ ci gisul seen bopp suñu waxee loolu mooy euh, équipe national A. bu Sénégal euh, bu football bi euh, mujj ci Qatar. allez debo marché sur la langue. waaye yow voilà gis nañu ne. tay jurbel euh, bu nu yuxo daanu dem kër ñom Bamba Dieng. Mhm. ñoro gi gi sax di suñu département. Mhm. amna ku ñuy titoro muy. Jacob Ismaïla Jacob. waaw ñun kaolak bu nu yuxo kenn xamul fu ñuy jëm. lool loolu yéen yéen ñi nga ko football bi noonu la ñu koy mëna expliquer leen. waaw moy lool lima wax rek qu'est-ce qui est à l'origine moy lima la wax sànq rek ne la accompagnement bi bu ñëk ba amul woon. Mhm. tay par exemple bu amoon ay talent mais dañ dal football mais amuñ ko leen accompagner mais tay amna ñoo xam ñu ngi ngank football bi di accompagner jeunes di di di di nuyuwaale au passage sama sama xarit Alpha Dabo mi nga xam ne moom moo yor mhm. CONEF. Mhm. tey yor football xalé yi. Mhm. tay U U23 yi U nangami U17 yi mais ay ay kaw la waa kese fa nekk te liggéey boobu ñu ngi koy def auparavant nag liguey bobu non amul woon. auparavant tay bo sello ay abda ñoo fi liggéeyoon tay ay ay jilaaboo yi ñëwoon. am na si ñu fi jaaroon mais ñooñu aussi accompagnement bi tay peut-être mëna dañ leena perdre ñu dem amna fi ñoo doon mais après dañuy mujj dem ñu transférer ñu hmm. mais tey xale bi nga formation plus de trois ans nga transféré ko mu dem kooku tey ëllëg même bu jaree ak fu mënti dem da ngay xam ne sa sa sa Kaolack la hmm. te liggéey boobu tey ñi nga xam ñu ngi ñu koy ñu ciy ay ay ay ay ay Alpha Dabo ay Babacar ay Père Lamine ñoo ñëpp ñi ngi liggéey tey ñu ngi ñu ngi formé même Abda Aj aussi mi ngi ak centre boo xam ne ay petite catégorie la tout récemment bi mu jógee fan aussi dañ ko xamal ne ko xale yi lañ gën a soxla moom aussi mi ngi travaillé ci loolu léegi loolu noonu tey bu fekkee dañ ci travail xale yooyu nga pousse ñuy dugg ay génération foot ñi dem ay jàmbaar ñi bokk ci U21 yi ñi bokk ci U17 euh, nekkoon Boussan tey xam nga mu jàmbaar mm-hmm. am na doomam aussi bu fay suyee ak yoo xam ne tey mën naa limal Kaolack waaye yu bare bare euh, léegi léegi bu ñu nee Ousseynou euh, autorités yi Kaolack dañuy dundee football bi waaye dund dundalun football bi mm-hmm. loo ñu tontu non loolu man du ma ci du ma ci d'accord dàq nga ko dàq naa loolu lu tax parce que xam nga li tax ma dàq loolu gaa yi dañoo xam rek di wax dundee football bi mooy lan football bi lan la am. mooy lekk xaalis bi ne ko. ban xaalis la am football ban xaalis la am. football ban xaalis la am fii ci kaw la. ah ban xaalis la am ci kaw la. waaw moo ñu jaaxal. waaw voilà xam nga nit ki balaa ngay wax da xam. Mhm. dèjà da ngay ñu bari naan subvention yi subvention yi. Mhm. subvention yi cent cinquante la bu fekkee mairie bi. cent cinquante mille franc cent cinquante mille franc loolu lu mu te tey jii ASC lañ koy nga dégg ñu naan ñu ngi lekk xaalis bi. lay jógee ci kaw moom nu mu toll. lay jógee ci kaw amul luy jógee ci kaw football amul fu lay jógee ci kaw xanaa nga am club soo amee club championnat fédération da lay fay te fédération lam lay fay yow mi yor club tey di def say frais di def say financement genn wàll gi sax matu ko ku xam football xam ni mu méttee lan lay jox genn wàll gi matu ko. ngeen ngeen mi nekk ci nawetaan. Mhm. man mi nekk ci nawetaan tey nawetaan bi ñu naan sax gars dañuy lekk xaalis amul xaalis. seen ASC bi moo nekk moo toll si nouveau nawetaan seen ASC bi si nouveau nouveau nawetaan lañ nekk. sama ASC déggoo. waaw mi ngi ci niveau nawetaan. Mhm. mais yor naa club civil mi ngi ci championnat muy Kaolack FC. léegi loolu moo tax nga ne affaire bi amul xaalis comme nawetaan yi. non maanaam li ma jàpp xam nga tey nawetaan Kaolack ku ne xam na na meloon bëriwoon na ay nit mais amul xaalis comme li gars jàpp. Mhm. te état bi da ngay joué am yow yaay obligé fay sécurité ku ne xam ne dafa cher léegi. dafa yokk sécurité bi dèjà yokk na rek. Mhm. man mii dem fay sécurité. boo fayee loolu lépp fay man xaalis laa am yi ngay jaay mënu la amoo sponsor

appel bo xamné yang koy lancer à l'endroit des deux personnes yi nga xamné ne ñoom dafa yalla tek fi ci diwaanu Kaolack muy Ahmed Youssouf Benjeloum ak Serigne Mboup jëmele ko ci walum football bi lan lay doon. wa appel bi may def mom wax dëgg yalla ci si Youssouf Benjeloum moy mu gëna xolal xoolaat sport Kaolack hmm. ak infrastructure yi. Hmm. surtout stade bi bu paré ñu xol nuñ koy gérer. ñew liggéey Kaolack de moom voilà ñu xol nuñ koy gérer gestion bi. jaar yoon fal yi ndombal tànk rek. voilà gestion bi jaar yoon ñu xol nuñ koy gérer et puis nit ki tamit lépp li la jox da nga koy jox àqam ba mu mat sëkk liggéey ko ba parce que Kaolack waaye yi bañ lay fal faluñ la ci tayeefu bakkan nii rek. Mm. dañ laa fal ndax dañoo am kóolute ci yow parce ñu bari soxla woon nañ ko. absolument euh, beneen bi ci tegu euh, bi may wax euh, président Serigne Boub. Mm. mi ngi ci. sa copain waaw mooy mu gën a mu gën a nekkaat ci lam nekk muy gën a liggéey parce que loolu la ko gars yi di xaaree. tey moom moom bu liggéeyul li ma waxoon ne ma mandat bi dama cee fas yéene liggéey fas yéene ma ci tey bu ci nekkul bu ci nekkul lay wax moom dem bu bu beneen yoonee du fi am dara. Hmm. dina fi dégg lu de. waay waay man man du ma waxal ni. Ah, lu war na liggéey de ndax sport Kaolack moom dafa feebul. taw Kaolack Kaolack mi liggéey ko yomb na parce que kenn liggéeyu fi woon. Hmm. Kaolack kenn mosu fee liggéey. mais moom mu jéem woon liggéey. kii li mu fi def dèjà ñëw dina fi mbalit mi yëkkati peel maye ko fi yëkkati fi bus teg ko fi ba pare nag di def ay recrutement di dugal ay booy. kon loolu rek man damaa jàpp ne sax moom bu fi yemoon sax doy na te pareegul. Hmm. mais Babacar parce ngi jublu ci reboisement. ñi ngi jublu tamit ci infrastructure yu bare bari yoo xam ne nag il faut que tamit état tamit dimbale ko. dooleel ko dooleel ko jàppale hmm. moom fu mu ci bokk moom. mu ngi AMS dama ci Macky Sall. ma ne mu ngi ci AMS wala mu ngi ci réel wala bokkul ci benn kuréel ci ñaar yooyu. Serigne AMS man la mooy association des maires du Sénégal wala réseau des élus locaux du Sénégal. fu mu ci bokk dégguma ko ci déggoo déggoo ko moo waaye waaye bu ñu waxee ci bu ñu dellusee ci football. ñaari ténor yi nga wax ñun bañu Nous juddoo ba léegi. Mm-hmm. ñoom la ñuy dégg ci football mooy euh, Abdou Nous mi nga tudd. ak mm-hmm. Koso ñu ci bari jàpp ne ñoom ñaar fi mu il est temps que ñu pousse nag may xale yi ñu ñëw. ñaar ñoom ñaar ñooñu. ñu war a dem lan wala ñu war maintenir lañ ci footballu Kaolack. waaw non li wax sànq déjà ñoom ñu ngi ngi ngi ngi baliser terrain bi di jox jeunesse bi. Mm-hmm. tey ki ki président boo njëkkee ci Abda ki jël ay xale formé leen jël yenn yenn responsabilités jox man responsabilité yi ma jox yeen xam ngeen na sax tay ëpp na sama niveau <laughs> mais macha allah mu mu ko jox. absolument comprendre kon koku balisé na terrain mm-hmm. ké aussi ñëw nga ne ko xalé bi mi ngi ñëw mu ne la jarum ngay bind na dugg ci nga ñëw man ma ñëw mu ibil ma kanam ne la affaire bi ni la mel ñëw leen ngeen jégé si jël ko. kon koku tamit parana na pour baliser terrain. waye machine bi gaawul. non dama né xam nga lan moy problème bi bo nekké ndaw waxna ko sànq may démarrer da ngay liggéey bo liggéey da ngay gëm li ngay def. mais mënoo nekk ndaw yow di sànni xeer di xalam mm-hmm. naan doxul doxul te fa muy doxee jegewoo fa mm-hmm. jéemoo sax xam na mel mm-hmm. mais mais tey pour mu dox il faut que yow nga ñëw assumer ses responsabilités jël ay responsabilités ji nga ndaw da ngay nangoo gàddu ay responsabilité soo nangoo gàddu ay responsabilités kilifa ngay doon mais mais mais Ousseynou euh, ñu gis ni football local bi ñu wax ko ak ñu ñàpp ko wax doxul ndaxte dañ koy justifier sax ci équipe nationale bi rek euh, joueur local amu ci. buñ ko te est-ce que est-ce que tamit euh, ban gis-gis maanaam nga am yow.

parce que tamit bëri na ay jafe-jafe. trop j'espère que Amadou Kane moo ko jiite non. non Amadou Kane nawetaan euh, la. nawetaan la jiite ok mais tamit vice président la. vice président la fédération. fédération très bien. Euh, léegi man li may wax ci football local bi. Mm-hmm. bëri na jafe-jafe. parce que tamit équipe locale yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi dund ñu ngi dund lu méttee métti tey mu noo yor équipe ak équipe ni mu méttee ak charge yi ni mu méttee te tey pour nga jot subvention tamit day xaw yéex wala même boo jotee subvention bi du jëriñ dara loolu li may wax rek mooy sponsor amuñu ko. amuñ tamit ay bailleurs yoo xam ne ñeme nañoo jël si équipe yi di ci financé parce que football toll na foo xam ne football dafay dugal xaalis tey loolu bu amee. Mhm. nit ki dootu sonn boo seetloo ay génération foot ay ay ay ay jàmbaar ñooñu sonnuñu ay Tëngéej FC ñooñu dañu am ay ñoo xam ne ñoo leen jël en charge mais loolu tey bu amoon football local dana xaw a tuuti dañ leen xaw a beneen bi ci tegu. mooy milliard milliards yi nga wax millions yi nga wax. Mhm. lions yi nañ lu ëpp jafe-jafe nag Sénégal à part là mais lions yi ko nga xam na ne mérité nañ mm-hmm. te ñaari nekk fédération ñi cay jot mm-hmm. ñooñu amuñu salaire amuñu dara te ñu ngi liggéey parce que tamit liggéey bi tamit buñ jotee ay milliards ay kii ñoom ñoo ko liggéey mm-hmm. donc man nit ki dama bëgg nit lu muy wax nga maîtriser ko ba pare xam ko mais Sénégalais yi des fois dañuy engouffré wu nii rek di wax rek sans pour autant ñu xam les les choses clairement mënoo ñëw fii te laajul la ci ah. mboose mboose bu kaw ASC mboose mhm. ASC mboose feebar na lool ASC mboose dafay sukuraat jamono sax nekku ci sukuraat ASC mboose waaw mi ngi doon sukuraat mhm. sama xarit moo ko yor mhm. muy vieux ba muy jeune bu am muy jeune bu dynamique tamit bu nangoo liggéey daaw naroon na yéeg daaw daaw naroon na monté moom aussi kenn da ko jàppalewul naroon na rek waaw waaw parce que tamit xam nga li problème bi benn nit mooy gàddu affaire yi di dem ak moom di jël ay moyens di ci def léegi doo gis kenn ku la wal tey vieux ba bu ñu ko puusoon daaw tuuti mu yéeg même ñun kaw la daaw bu ñu puusoon tuuti ñu yéeg parce que nag gars yi dañuy toog di seetaan xam nga tey tey da ngay gis koo xam ne day yor alalam. Mhm. nekk tamit bonne volonté wala nekk fervent supporter euh, club bi. ay Saloum ay Saloum wala Mboose. Mhm. te fukki dërëm du la ko jox. du la jox juróomi dërëm yoo xam ne da nga koy jëndee ndox. Mhm. léegi nag moom la lan lay préféré tey ah affaire yi doxul gars yi ko yor doxuñ mais nit ki da koy jàppale tey vieux ba mi nga xam ne agent agent mairie la nekk tey xam ne kooku tey salaire am ba mu yor ak la mu yor mayu ko mu yor équipe. te pourtant mi ngi góorgóorlu équipe bi manqué dara manqué wuñ dara di fay ay salaire di yóbbu nit ñi fu nekk kooku tey bu ko ñaata nit ñoo jaar Mbossé ñu bëri jàppale woon ñaata ñoo jaar Kaolack see ñaata ñoo jaar ñëpp buñ dajaloo woon def i budget tey football mm-hmm. ñu bëri dañuy seetaan mm-hmm. Kaolack waa day seetaan par rapport ak yeneen dëkk yi mm-hmm. ba mu ngi national deux non waaw mi ngi Mbossé ah. mi dafa waroon di national deux mais ngi régional kañ ngeen di yéeg

football jigéen ñu ñëw fi première division football féminin depuis des années nag Abdoulaye gàddu ko te ku ne xam ne football jigéen dafa métti. Hmm. jigéen dèjà seen i frais seen i charge dafa métti trop lépp moo ko géré daaw ñëw final ñu ne ISPA. Hmm. ISPA équipe nationale bi ngeen gis nii ñëpp fa leen nekk quinze quinze quinze équipe yoo xam ne ay joueurs équipe nationale ñoom ñoo fa nekk te pourtant ñëw nañ kaw la liñ un doon mënuñu. mais bi ñu demee fee dañu ñooy écrasé. kan la mhm. ñu dóor. Mhm. parce que dèjà ñun ba ñuy dem final condition yi dajeewul fañ fañ fañ fanaan sax dèjà yooyu xaw nañu rey booy yi kenn nelawul ndox sax amu fa ñoom ISPA dèjà ay millions lañ leen jox ay prime te ñoom xamante ne kaw la que football féminin Abdou añ moo ko créé ay ay zoram rek ñoo nekk foofu di nekk équipe national ak ñii kii ñëpp ay zoram lañ.

parce que football féminin léegi gars yi ñu ngi koy bëgg ñu ngi koy bàyyi xel mu ngi commencé nekk ji mu jéem a dem parce que. fi mu toll yéen a ngi demi euh, ah, final. yi mu nekkoon nag match boo xam dama euh, di félicité bu baax a baax. parce que c' mhm. dañuy jekkonte rek. waaw da nga jekku kii dóor ko neuf. Mhm. nga jekku kii dóor ko huit. Mhm. ñun dañ leen jàpp dóor ko dóor ko ay neuf wala onze. ISPA bi mu ñëwee 1-0 la ñu doon. Mhm. ñu dem foofu boo njëkkee dugal rek mën nga jekku nit ki. te puis dañoo am suñu internationaux tamit dañoo def première minute mu gaañu. Mhm. Fatmata Dramé mooy ki gaañu woon. te ISPA sax c'est normal dafa diis. Mhm. voilà équipe bu diis la ay benn ñaar lañ doon. léegi nag problème yi bari na que ça soit ci football local bi la ñuy njëkkee. waaye lan nga gis ne Ousseynou Diop tey bu nu ko defee. football bi dina delluwaat fa mu nekkoon ndax te ku waxoon fubal sa xel day daj Kaolack mais léegi dem nañ ba jël ndadde ci li nga xam ne moom mooy rang yi. fubal bi daal li ko mën a développer Kaolack. mooy lenn kese la mooy mercenariat bi ñu bàyyi ko mercenariat bi ci jiitu. jéggaani jour. waaw jéggaani jour. Hmm. parce que loolu li koy waral mooy manqué manqué jour. Hmm. léegi nag football à la base tàmbalee mooy ci petite catégorie hmm. xale yi ñu ngi football ñu promouvoir leen man sama ASC déggoo man maa fa kenn deful. mooy lan. dem jëli ndaw yi indi leen ñuy football. wutal ay licence wutal leen ay licence te ku ne xam ne déggoo ay joueurs yu mag la indi. Mm. ay Mutaaru Balde yi nga gis nii nga xamante ne bii ñu ngi football ay tëngee. jàpp la déggoo joueurs dajale mm-hmm. man ba ma ñëwee dañ ne ma carte blanche ngi noonu xale yi ndaw yi laa commencé jëli ñuy football ma ne la man gëmatuma ay dóor naa déggoo wala naa jël nañ li ñu war a jël mm-hmm. tey bu ñëpp defee noonu bu sànn def ko bu sànn yàgg na koo def auparavant sax bu sànn déggoo ñoo fi bu saan def ko tey maam boo def ko keneen ak keneen def ko ñu mhm. yëkkati xale yi ñuy football mhm. bu ko defee ñu promouvoir leen tey boo seetloo naa leen naa leen wax ngeen ngeen ngeen suivre euh, football ligue bi ligue régionale mhm. tey ay xale yu ndaw ñëw match yu lay doon ñooñu boo leen promouvoir ñu ñëw nga encadré leen tey yaakaar naa football Kaolack dana mën a jëm ci kanam bu ko defee nag sponsor yi nit ñu jàppale leen parce que tamit tey mënoo ñëw di football loo xale bi muy football bu dammee wala mu feebar sax mënoo ko faj dina am talent nag mais day dem feneen. Mhm. il faut que nit ki tamit ñu jàppale football dafa métti. mais mais est-ce que itam yéen ngi yëglu ci mel ni Sané di Sine Saloum Sonatel yeneen ak yeneen yi nga xam ne. war nañu mën a ñëw dugal seen loxo ci football bi. Ah, Salé ay Salé chaque jour dañuy gis ne dañuy des ginnaaw da ngay bind da ngay bind courrier yóbbul leen am na si ñoo xam da ngay bind courrier yóbbul leen mais duñ la mës a tontu am na si ñoo xam ne ñu ngi lay jox waaw ah, ñun ñun Kaolack FC yoo xam ne ñoo xam ne waaye li ñu leen di jox doyu leen waaye li ñu jox mais ñu ngi leen di gërëm ba tey mhm. ñu leen di sant ba tey parce que nit ki lu mu yëkkati si alalam dompat sax ci xeex la bokk waa kay mhm. dompat ci xeex la bokk tey ñëpp defoon ni ñoom mhm. dana avancé mais am na ñoo xam ne mën ngaa bind courrier ñu jël ko wala nga ñëw ñu ne la bindal nga bind yaakaar ne doo bind nga bind ñu ranger ko si tiroir yi tey loolu tamit doxul mais Kaolack am na benn centre de foot benn boo xam ne mu ngi ci kër Samba waaw ndax yeneen ñu ngi envisager ñëw wala yéen a ngi dox pour yeneen am waaw am na kër Samba am na yees. yees kaw la yees bu bu lycée fii. effectivement am na nangaan foot. waaw mais mais centre boo xam ne dafay am suivi boo xam ne xale yi fa la ñuy nekk. ñu leen fay internet di leen tàggat ba noppi ñu fay def ñu fay tàggatu ba fa noppi di jàng. waaw loolu mooy mooy li ma la wax sax loolu mooy li ma la wax rek loolu mooy développé football kaw la. tey boo hmm. seetloo Kër Samba liggéey bu rëy bu muy def tey boo seetloo booy booy ci bare bari ñu ngi leen di jël sax. ñu dem di football ay U13 U15. absolument tey loolu mooy waral tey ëllëg équipe nationale bi di ci gis ñu ne kii Kaolack waa la dëgg yàlla liggéey boobu tamit ñu ñu ngi leen ci remercier di leen ci encouragé mm-hmm. parce que ñoom tamit dañuy am ay partenaires mm-hmm. tey ki nga xam ne tey am na am na envisagé na loolu mais tey mënu ko def parce que xëy na peut dafa amul partenariat mm-hmm. mais tey ñi ko bëgg def bari nañ yees aussi mi ngi koy def moom aussi peut être mi ngi am partenaire parce que Alpha moo yor Konef ak keneen ak keneen il faut nit ñi tamit wuti partenariat boo ko a mën a avancer. acca allez euh, damay damay ci li nga waxoon. wàllu mercenaires yi damay benn waxtu ak moom. waaw mhm. euh, ne mais li ci ëpp ci jafe-jafe yi ciy am mooy ñenn ci booy dañ leen di sànni xeer jëmale ko ci lan euh, mercenaires yi ngeen gën a fonk ñoom loolu sax bokk na ci li leen di frustré. ba koy góor bu tey booy ya fa nekk duñ fa fubal li ci ëpp feneen la dem di mercenaire ñu gën leen fonk lu waral loolu loolu xam lu waral man nga xam ne ngi ci soos bi tey ci digg si ñànkatan bi laa nekk. Hmm. tey man su ma sañoon tey booy bi dëkk sama koñ laay football loo xam ne tax. Hmm. ma ci fere dara. mais daf ci am yoo xam ne tey booy bu fekkee sax dafa aay. Hmm. boo ko yóbbee terrain mu football loolu. bu subaa mu wala xam ne tax. mun nga ko ne kañ dama gaañu wala nga jay ko. ah yaa fi ne mu jaayaxu waaw si nopp yi ne ko yaa fi ne. mu mu xëy na la noo jox ma temps wala nangam. mais jox ma temps boobu moom ngay ki nga xam ne. Ah, moom non non bokkul de nit ki booy fubal sa dëkk. sa koñ. am na yenn yoo xam ne waroo ko laaj parce que bu ñu la ko joxee man mi nekk dirigeant dañ ma kaa war a jox. waaw ah, waay mm-hmm. da sa couleur. da ngay sa mm-hmm. couleur quartier yow. yow mi loolu laa d'accord ak yow. voilà mm-hmm. non man damaa xamal ne te booy bu ci gën a aay sax tey daf lay def loo xam ne daf lay métti. mën nga ko yóbbu mu fubal tojal la terrain bi. suba nga di ko may non damaa gaañu di def star quoi di def star wala nga koy jeey suba sax mën a gannaaw suba sax mën a dem beneen équipe mais tey par rapport ak gan xam nga gan. Mhm. dañu waxante dëgg hospitalité ñun dañ koo fonk. Mhm. tey man du ma jëlee Gambien ma Gambi. Mhm. mu ñëw ndekkeegul añagul reeragul ma koy ma koy yemaleeg booy yi loolu yoor la ma fa. da ko yóbbu mu ndekki da ko jox mu añ da ko jox mu reer su fubalee aussi da ko neexal xam nga di ko neexal. parce que pour beneen yoon mu ñëwaatal la. mais loolu moom mooy bokk ci liy frustré booy. donte mënta ñàkk c'est obligatoire. booy bi tey yow li war si moom man nag li may li may wax tamit booy bi aussi waroo ko yor tamit te tey booy bi tey même bu feebaree doo ko doo ko faj. voilà. xam nga loolu tamit loolu tamit. mais ki nga xamante ne da nga ko jëlee Banjul nga di ko jox añ reer ndékki. moo jaadu te ki nga xamante moom nga dëkkal munoo ci moom loolu tamit doy na waar de. ki nga dëkkal yow mi ki nga dëkkal mi ngi añ mi ngi reer mi ngi ndékki mais am na foo doole yamu. xale yi am na foo xamante ne moom ko ko. war a défendre seen couleur koñ. loolu mooy dëkk bi loolu man ànduma ak yéen. mais yàlla minimum yàlla yàlla yàlla minimum. man ànduma ak yéen munul bàyyi ba nawetaan ñëw mu ne man añu ma reer waaw mais côté yaa yaa des fois da ngay dëkk si koñ nekk ci benn club nawetaan football yi gaañ ki la ki nga xamante ne moom moo la faj pour nga yow tey jii da dem pour xeex ngir nga indil leen coupe da leen di indil coupe te duñ la faj. Gambien lay footballal tey uh-huh. dafay constant. Mhm. tey saa bu ñëwee lim lay wan la lay wan mhm. booy bi dëkk si koñ bi tey bu amee niveau tey bu la footballee lay suba du la ko wan on a disconvient même pas mais jàpp naa ne yàlla yàlla minimum benn élastro bi ngay jëndal ki mbagam kii léegi nag man li may li may wax di ko promouvoir mooy ah, tey aussi amuñu xaalis tey uh-huh. booy bi nekk si koñ bi tamit même boo amul xaalis même boo amul xaalis le minimum man tey sama booy day feebar uh-huh. dama ko yóbbu bon ay et puis boy bi aussi dang koy wax mais mom moy considération bo nekkee dirigeant bo nekkee dirigeant bo nekkee dirigeant da wax boy bi. Mhm. réalité ASC ba mu xam ko. Mhm. mais mu no ñew mu gis nga jox 15 15000 mu yaakaar ay milliards fi. Mhm. nit ki da wax li deug boy bi nako boy li mo fi nek mom dina sawar sax nit ni fi. wax nit et puis nak boy bi tamit considérer. parfois diko wo diko mais nag boo ko considéré wu nemmeeku ko looloo waral mu frustré. Mm-hmm. jeex na voilà mm-hmm. lii rek la <laughs> ñu ngi lay gërëm. waaw maa euh, maa leen di gërëm yéen ñi vraiment di rafetlu jotaay bi encore une fois li ma ñaata la joxe ci coupe mère bi sax. 5 millions la génne. lu loolu kenn mos naa am. mosu fee am. juróomi million. Eh, eh, parce que defande moo tax. Eh, Babacar génnal ci li nga waxoon loxo bi daggoon. kolewaat <laughs> ko noonu loxo bi ñëw. <laughs> musta dagg loxo bi dem bu ne musta dagg. waaw juróomi million. juróomi million ah. ba pare ñëw. te ñu bëgg a fu mu jógee ak ah, ah, fan la parce que amoon ay activités yu bari biir Dakar sax lañ jógee am ay activités yu bari yow ku ne xam ne. waaye nag gars yi neen daf ñu tay la de jox ñu mbay ngom quoi ah. non non du loolu parce que. nañ mbay ngom moom fi ne moo fi nekk mooy. li may may li may may li may wax man mbay ngom miinanteewu ma ak moom sax li ngay wax nii. moom. laa xam. mais mbay ngom tamit tey président dafa dina jàpp ko ba jël nit wóolu ko. Mhm. parce que tey jii homme de confiance am la. te tamit xam naa ne liggéeykat la parce que nit ki tamit man xam naa ko xam boo xam ne ku dul liggéey amut ak yow affaire. Mhm. te Kaolack waa dafa nekk dafa am genre jalousie boo xam ne nit ki buy liggéey yor ay postes yi di ko doxal dañ lay xeex yaa yor lii. yaa yor seen xol naan day saa xol day day saa. man mi dox yow mel laa nekkoon Ablaye Wade moo ma jàngal politique. yàlla ah, ah. université kon de aay nga. doon ànd ak euh. doon ànd ak euh, kii euh, Toussaint Manga nekk mel. <laughs> xeex nga da nga daan dégg da nga daan dégg sax kii nu mu tuddati Karim Wade ñu ne la moom lañ jox lépp.

di defar licence fii eh, nawetaan yor club bi nekk ci jigéen ñi defar CTI yi boole ko samay cours yu may liir samay samay jàng samay business xam nga loolu tamit mais il faut que nga nangoo ku sawar lañ koy def mm-hmm. ku njaxlaf mais ku yaafuus tey jii am loo xam ne bu la ko joxee nga yàq ko du la ko léegi nag laaj bu mujj muy Auchan bi ñu bëgg a def fële nag ci cœur de ville yëg nga ko wala yëgoo ko yëg naa ko Auchan bi ah. Auchan bi d'accord nga ci oh, déglu rek Auchan bi sëriñ bi mu ko fi bëggee def hmm. am na ñu ci waxoon hmm. moom taxawaat na ne defuma ko léegi nag daf ca génn wala génn ci. la ma déggoon moom mu wax ko. Hmm. déggaatu moom mu wax nee na ne su ma ko bëggoon def am na prérogative def ko VSA bi. Ah am na ko xam nga. ndax mooy maire. waa kay sans maire sax moom moom moom foofu moom moom lañ ko jox. waaye moo ñu waxoon ni. waa dama ne ca élection yi. waaw dama ne hmm. pour wane ne la gor la. Hmm. pour wane ne la nit ku gore la. nit koo xam ne bu jekkoo tey du nit maanaam ñoom dañuy jekku di di dóor. lapp la lapp yu métti ba mu ko bëggee. ba mu ko bëggee nit ñi kaas léegi dem na ba téye ko dana leen bu ko bëggul. su ma ko yoroon man hmm. tey bëgg ko jamono jooju téye ko fii du bu ma koy def su ma xëyee suba ma taal kenn léegi yow pour yow nag sa avis ah. personnel d'accord man sama avis personnel hmm. damaa d'accord ñu def fa loolu xam nga tax fan fii ci biir kër de ville yow nag gis nga bu ñu la fekkee fii non déglu ma déglu ma déglu ma waxal la déglu non non mu avancé ah, ak affaire man pour man non non yéen yéen fi dig ni uh-huh. fekk maa ngi fi Auchan moom dootul nekk moom waxam la sama avis wax xam nga tey moom loolu la wax xam nga ba nga la ne lii mom mom moom loolu la wax. waaw ba ne la ko goré la mais man sama avis man man Ousseynou Diop man. bo sañon suma ko mom suma ko yoron hmm. dama koy def parce que secteur de développement la xam nga tax ñun dañoo nekkon Dakar xam li ci ousan man dama dan nekk Dakar weeru koor jot wallahi lazim ben 10000 la ya kay damay bañ nga genn fi ñu kar la door lay yett non ban door yett man man man ñi nekk dëkk bi ma gën leen dëkk ci dëkk bi xam lepp dama lay ñëw yor 10000 dugg ci ousan bi. Hmm. dugg fa. dem sama kër denc ko fa koor gépp dama koy utiliser. te dix mille francs képp ci dix mille francs képp lu bénéfique mu jëndee sama potu café samay pot tendrement ak samay solution yooyu dana danaa ko lekk ba mu jeex lu bénéfique te boo yoroon dix mille boobu ñëw ci commerçant bi wala am tey di ko kii mu ne la ne lii dafa yokk wala mu jaay la ko mu la neex mm-hmm. te yow yaay xool tànn sax bu la neex bu la neexee dem ci Auchan bu la neexee dem fii jiga pays en voie de développement dafa war am concurrence mm-hmm. d'accord na dox mais doo toog rek d'accord ma du ma def lii mm-hmm. du ma def lii ji nga nañ bàyyi loolu kaw la xam nga lu ñu gën a tardé mooy lan lu ñu fi war a def kenn taxaw fee xalaat ko waaye doxul loolu baaxul te yow doo proposé lu baax bu ko defee ñu jël loolu yóbbu ko beneen dëkk ji nga nit ki même bu dara amee mm. toogal nga xalaat si jàngat si laaj si ñu si seen xam-xam màcc mais yow bougé woo génnoo demoo fenn toog ci rajo yi surtout booy yi nga xamante ne bii plateau yi rek la ñuy wër dama yàlla baal di fen rek di mm. wax loo xamante ne bii maîtriser wuñ ci dara di la tagg di la rek ci loo xamante ne bii xaalis nga leen di jox boo waxee ñu fen a fen a fen ba toog te yow li ngay def maîtriser wu ko. man mi hmm. génn gis ak ñi nga xam ne dañuy génn di gis te li ma la wax ci sport bi nii xam nga ku génnul du ko xam. ku ci nekkul ci soos bi du ko xam. Hmm. li ma la wax tamit ci sëriñ tey ku ci nekkul doo ko xam. te wallaahi la azim amul kenn man ku ma xam xam ne man du ma faral kenn. léegi nag léegi nag benn laaj rek nga baal ma waxtu wi jeex na waaye terrain yoy ngeen bëggoon def terrain décentralisé yoy mhm. terrain déggoo terrain HLM ngeen da ngeen koy clôturer ba nopi diko ko luyee xalé yi ma defoon ci gëssu sax né une heure temps bu né da ngeen ko luyee 20000 non la wala du nonu non gëssu bobu ngay wax lolu cœur de ville mais mais décentralisé yi. ngeen ko bëggoon décentralisé ko mini foot yi. waaw mais doon wax mais décentralisé yi. da ngeen envisager wala wax. Hmm. ña nekk sa ba peut-être ma nekkal doo def sa terrain xam nga doo def sa terrain def ci sa gazon synthétique def lu ci war bu ma bi fii c'est des millions léegi nga ne dama koy def gratuit kooku pertement la. Mhm. tey yow mi sax yow bu ñu la xool gratuit yaa a. moom kay dara da du ay dërëmam yow. boo waa ji ñu xam rek boo investiroon non du ala du alalu alalu askan wi la mais daf lay jàngal loo xam ne tey yow boo investiree war ngaa mën a def loo yow mi ku la gën a ngottu amul. war ngaa xam ne de telle sorte ko tey. yow ni ngay waxee nii. tey boo boo boo defee militaire yi bàyyi ko noonu. déglu rek boo defee militaire yi bàyyi ko noonu ku ne ne Kaolack waa dafa abusif. Mm-hmm. gratuit la dañ yàq. Mm-hmm. dañuy ñëw laal li gazon bi lakk làmp yi ku ci nekk ne affaire buur la. mais mais mais tey nga def mini terrain bi nga def ko biir terrain déggoo. waaw lu mu dee dee boo defee mbir ci dëkk ñoom dinañ ci am wàll. waaw

ku fa soxla dara da ngay ñëw. ak waay mm. nit damay woo sax walaay lazim damay woo ne ma yow yaa géré terrain bi ñaar laa lay fay ma ne la noo soxloo ma li may fay. Mm. soo paree nettoyé mu dem barki alxuraan. Mm. kon tey ji muy ñu wër alentour yëpp ñun amuñu kenn ku ñuy ku ñuy xulal man ñëpp samay waay lañ ku ñëw da ngay fubal tey ki nga xam ne tey war ngaa fay la ngeen fa sañ yéen waa déggoo la fekkee heure entraînement dina am ñoo xam ne tamit mën nañ leen jox ay heures yoo xam ne dañuy entraîné ok mais dara du ci dara très bien loolu mooy problème ñu ngi lay gërëm Ousseynou Diop opérateur économique la du étudiant jiite mouvement bi ñu naan MJRDM euh, di mouvement de jeunes pour la renaissance et le développement de la ville de Mbossé développement bi nag fu ngeen ci toll yéen a ngi ciy defi pexe ngir Kaolack jëm ci kanam waa développement bi ci la ñuy dox chaque jour hmm. dëgg yàlla lépp lu bi la tey Kaolack moom yaakaar naa buñ ci paree sama gis-gis bu ñu ci paree buñ demaatee élection Kaolack waaye ñoo naan farfosse jëlaat leen ko. man loolu laa gis gis-gis boobu laa. yaa ak Serigne sa copain. waaw Kaolack waaye ñoo koy jëliwaat na ko jëlal far force. jërëjëf waaw loolu gis-gis. gërëm nañ la Assane ñu ngi lay gërëm dig daje suba. Euh, ñu ngi lay gërëm yow tamit Babacar naka noonu Ousseynou ak ñi nga xam ne bokk nañ ci plateau bi Salibé Serigne Salibé moom hmm. tamit. ñu koy nuyu de passage euh, noonu la jaar nuyu képp ki nga xam ne yow yaa ngi doon suivre bi la émission di la sant di la gërëm ci taxirlu gi nga xam ne taxirlu nga ko ngir xool waxtaan bi nga xam ne amal nañ ko fi Babacar tey ñu jotoon waxtaan ci yenn point yi muy 13 morts la rassembler ni nga xamni ni lañuy yëkëti ak ki di Ali Kouyaté toj toj yam def ak lu ñu mel loolu yëpp jot nañ ko fay waxtane ak ki di Ousseynou ak ñëpp ñi nga xamni ñu ci biir plateau bi cyant ak ngërëm ñal na la Babacar jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax yaama ñu ngi lay jox dig dajé suba jàmm incha allah waaw Babacar amoon na mbette contentement bokk ak yéen plateau bi mu di leen jox dig dajé bu suba inshallah allah mhm, jërëjëf bala may eh, bala may jog ma ngi ma ngi walé aussi sama mouvement bi ñi nga xamni ñom la sékkal liggéey bi ak sama waa koñ ak euh, jigéen ñi nga xam ne saa bu ma jógee ñu jàppale ma euh, fépp fu ma yëngu tamit dañ fay teew ak euh, ñi nga xam ne ñoom laa àndal ñoom ñoo ma wóolu teg ma seen kaw mënumaa toog si télé te du ma leen gërëm beneen bi ci teg aussi di leen remercier yéen tamit comme li ma leen wax di leen ne seul le travail hmm. ay jeunes ngeen tey fu ne mu ngeen fa àgg ci kaw ngeen gëm seen bopp te man loolu laa gëm-gëm boobu laa am. di len di len invité wal nak parce que amna ngan go xam ne sama sëriñ moo may siyaar si. sëriñ Modou Kéemaan Mbacke lañ koy wax. Ah. di di di di sëtu di di dom sëriñ Abdou Mbacke borom dër bi. Ah. di sëtu sëriñ Touba direct moom mooy ñëw sama kër chaque chaque année. Mhm. ren mooy quatrième édition. sëriñ Abdoulahi borom dër bi. sëriñ Abdoulahi borom dër bi waaw. sëriñ Modou Kéemaan. ñu ngi cay ziar yi tamit sëriñ Moustapha Xasaayit Mbacke. waaw sëriñ Moustapha Xasaayit moom. ah oui absolument la waaw moom mooy ñëw kër ga euh, dimanche vingt cinq décembre. sëñ Abdou Kéemaan Mbacke Serigne Modou Kéemaan Mbacke Serigne moom mooy sama lépp. mu ngi ci bokkee ci sëñ Abdoulahi si je ne me trompe pas moom mooy juróomeelu ko xalif bu bu Serigne Touba juróom-benn juróomeelu doomu Serigne Touba xalif Serigne Saliou naa leen ci woo acca ah, merci beaucoup ñu ngi lay gërëm euh, taalibe Serigne Saliou waaw loolu ngeen ma oowee nag neex na ma lool sedd na sama xol ndax man ku ma xam rek xam ne sëñ Saliou laa bëgg ah. di ñaanal tamit sëriñ Sall Thioune ndigal yàlla yàggal ko fi loolu ndax moom mooy suñu xalifa mooy suñu lépp. déjà Thioune Demba Yacine Baba Yacine Alpha Missé Balakons. Mm. nee naa leen tey damaa am mbégte bu baax teew ak yéen waaye nag suñu <laughs> gan gi lépp wax na ko moom it di ko jaajëfal bu baax ci teewaay bi nga xamante ne moom la ñu woon teew ci match bi ànd ko ak ñun ñi mais tey nag sama doom day anniversaire di sama doomu mag. borom trondo bu teel a bi ñu koy wax jéyee nday asu mbàkke mooy yaayam waaye Babacar jaay mooy bayam kooku mooy borom la douze di ko wax dundal dundal ba say may di baawaan nee naa nag su ma ba fii daal di toog ak ñi nga xamante ne dañoo yaan ji faa mo nuyu ki nga xamante ne sama xarit sama doomu ndey saa yu émission bi jotee day bàyyi ay yitteem yëpp toog di ñu seetaan muy caatu ah, dib kooku caatu dip borom la 26 janvier la na ko ñëpp waajal mi ngi dëkk foofu ca Medina Mbaba di doomu yaayu

wërngal Kep tay ñu ngi tànnoon kenn ci ñom di Ousseynou Diop opérateur économique étudiant nekk tamit président du mouvement des jeunes pour la renaissance et développement de la ville de Mbossé donc ñu ngi leen di euh, gërëm bu baax di leen sante way leen ni suba ak jamm di dinañu ñëw ak ministre bi lan la fa ak lan la wara war a joyanteeg dinañ ko càmbar ak suñu ganu ëllëg way leen di dess ak suñu programme ndax ndaxte mbiri nga ci jàngeen jëf yendoo ak jàmm